cheikh Mbacké imam Serigne Moustapha cheikh Abdoul Khafour borom saam ñu ngi lay jox wàccuwaay wi la yàlla jox ci kër sa maam cheikh Abdoul Khafour euh, mu mel ni sa yërmande ak sa mbaax sa civilisé sa bëgg sa wajur nekk Baye Fallou Serigne Moustapha imam àdduna bépp seere nañu yàlla dogal suñu kóllëre ëpp na fanweeri at def naa ay 93 ak léegi mi ngi waaj a yàgg am naa ci tawféex joo xam ne sant naa sëriñ Touba bu wér bi sa maam Sëñ Abdul Xafoor di dund booba buñ mosaan ñëw yaa ñuy laqar ci boobu ñu ngi ci kër sëriñ Saliou Serigne Abdul Xafoor bu mosaan ñëw buñ ne Matar Jaxate wala Modou Gueye Seydou Xafoor ñëw sëñ Saliou day lallu ñaari sijaada bu ñëwee sëñ Saliou fi mu toogoon ci kaw sijaada bi lay toog bii sëñ Abdou Khafor toog ci barkeelu yooyu ya nag bu ñuy dem góor a jéey mii safooru sëñ Saliou bu sëñ Abdou Khafor de moom la sëñ Saliou di wax barkeelu yi moo topp oto sëñ Abdou Khafor kon foog naa ne fanweeri ku ko dund fekk nga ci yëf yi dara may wax waa SICAP waa Liberté rijaalullaahi ak jullit yi ak taalibe cheikh yi këru diine yépp ñoo fi daje l'islam élégance la dafa rafet mooy Baye Fall yi bu ñu jaxasoog taalibe cheikh yi ñii dañuy dóor seen bopp ñee di attaayal seen bopp loolu rek mooy secret bi man nag damaa bokk ci ñaari kër yi baay fal bi moom day dóorul di ñëw taalib bi sox cheikh civilisé toog ci kaw yoru kurusam di jàmm yàlla lii rek mooy doomi nijaay ak doomi bàjjen di nuyu nag sëriñ Bachirou mi nga xam ne mooy parrain officiel bi nga xam ne mooy doomi soxna sëriñ Cheikh Tidiane Al Maktoum dafa wax ne fu ñuy concourer ne ku fa dee jël Moustapha alayhi salaam ne annaasu niyaamun fa ishamatu intabu nit ñi dañuy nelaw waaye buñ dee daan yeewu Cheikh Ahmadou Bamba ne la tastari dunya bi uxraaya fata man ba nuurun bi du jaa sa yëndam ku jaay sa tey jële ëllëg réccu dana am démb ci bisu sëriñ Maxtaar Sylla mu tëdd mu barkeel mu rafet mi nga xam ne sëriñu ndaanaan laa ko tudde min na fii si kam bi ñuy waxtaan dama ne ko sëñ Maxtaar sa digg ak Serigne Cheikh yàgg na lool waaye li ma jaaxal mooy la sëñ Abdou Lahad ibnu Cheikhil Khadim waxoon sëñ Abdou Lahad daf ne kaala bu njëkkee ci ndigg nga takkal ko say wajur bañ gërëm la bu ñëwee ci sa baat da cay des ñun yoonu murid tër bii suñuy kilifa la ñu yare jërul ñu yàkkamti dara buñ bëgg dara nañ bëgg sëñ bi suñ bëggee sëñ bi sëñ bi jox ñu lépp kon sang yi fi teew yëpp sëriñ Moustapha Bousso Abdoul Wadoud yaaram borom guy mbind daa mel ni li fi ne ci sang bëri na sëriñ Xaadim Mbàkke imam nag su ma tuddee sang yi tam muy rakki sëriñ bi moom laa ko jox mu jox ay rakkam képp kuy dégg rajo bi rek yëgal ne yow laay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah muy rajulun kabir di góor yàlla dindi nisaawu di soxna yi wa ma bi nihmati rabbika fandisa alxuraan def ne li ma leen defal di leen ko wax sang bu tedd bi egsi léegi jóge ci sëriñ Salim Miftaahu Nasri Darou Salaam sa sëriñ maag moom ñoo bokkoon kër sëriñ Salim 1982 bi ñu nekk got ci xabaan sëriñ Salim sëñ Touba yar ko muy sëriñ Salim bu sëñ Ibra Ndar Miftaahu Nasri kooku xam naa ko may wax ni at yaa ngi waaj a bëri waaye bëreegul sax waaye yu baax yëpp dañ caa barkeelu lépp lu waaye doon wax bañ ne jox nañ rajo bi bàyyi mu boo dégloo rek lépp baax. man lépp 10 minutes lay doon du mat sax 10 mën na nekk 9 parce que sëñ Cheikh day sama xarit xam nga xarit yombul yëngu bi mu ëpp ci yoonu murid 1997 bi ma ko jiitee ba mu jeex mu def 21 ans moom sël moo jël ay taalib bi ñëw sama kër si kaat tant na ma sëñ Mbàkke bis boobu laa lay décorer si bis ni tey togg ay ñamam rey ay gàttam indi ay taalib bi ñoo tantal ma ci sama buntu kër si kaat kon kii sama xarit la sëñ Moustapha Imaam sëriñu jëwrin Modou Fall Bey yow sëñ Moustapha Imaam mooy sa jëwrin moo la seex am nga problème parce que sa problème mooy rijaal yi yaa leen yilif waaye yow sëñ seex moo la yilif kon kuy ko imam ashabul janna hum fiha xaalidun ahlu Baye Fall sëñ Modou Fall Bey soxna maam Mari yëmm moom sëriñ Muntaxa nga xam ne wax dëgg yàlla nag bàyyi ma moom yoon wi tey mooy Serigne Touba al muntaxa kullu si saxaa wayanhu bihi nayun saidun wa surtuxa sa wajur bu tàdd wi muy bëhrul olom di murit sadex Serigne Muntaxa soxna maam Faati sa wajur moo Cheikh Abdoul Khafour borom saam jur Serigne Moustapha mu jur Serigne Cheikh mi woote bis bi tey ma am ci tawféex joo xam ne ñi ko am nag bëriwul sama wajur wu jigéen dafa am tout tànk li ma lay wax 78 la sama baay dem wax ko Sëñ Abdou Khadir jóge Marsoukaas fekk ko ci kër gi si jumaa ji ñuy waajal tudd mi bis del Sëñ Abdou Khadir ñëw di ko tudd si bi mu ñëwee ñu jox ko tout tànk bi waxuñ ko góor la waxuñu jigéen Sëñ Abdou Khadir ne umul xayri ñu ne ko jigéen ne mu ne Abdul Xafoor ñu wulbatee bari dafa gaaw sama baay ne tekk mu ne ko Abdul Xafoor borom saam yëg naa ne sab xarit la Abdou Khafour moomu sama wayjur jur ko ñu bokk ndey ak baay moom la Serigne Saliou def mooy ilimaani jaw bi bis ni ki tey Serigne Cheikh Mbacke imaam mi xam na ko kon yaakaar naa ne ndegam Sëñ Abdou Khadir mi Sëñ Touba xam na li mag ñi doon dund kon ñun kóllëre gi daf ñoo jiitu Serigne Cheikh man damaa jàng ci yow ñaar bi sëñ Abdou Khafour sa maam di dund am na ñoo xam sax daawuñu sëñ seex imaam sëñ Cheikh bëkk néeg ak tur wu jox nañ ko ko takk laxasaay gi tël tël daw dugg amul soxlu lu dul Sëñ Abdou Khafour ñun dañ ko dund fekkee ko man koo seere bi ci gi tey sa waajur sëñ Moustapha imaam ci lu yàggul defe naa matul un an et demi sëriñ xaarib Imam ma ngi foon ak yeneen rijaal yi da ngay waaj dem cees ku ñuy wax daf dabe nu mu tudd sax debbo debbo di def bisu sëñ Moustapha Imam ca cees ma ñëw ànd ak sëñ Cheikh fekk Moustapha ku rat ku doy waar mooy sëñ Moustapha Imam ma ànd ak sëñ Cheikh fekk ko asalam ñu nuyoo mu ne ma damaa bëgg nga gunge sa waa ji ma ne ko pourtant moo ma waxoon nag gunge ji Thiès mu ne dafa am sama taalibi bu fay def bis boo xam ne nii sa baay lañ ko tudde sëñ du Mbacke sa wajur lañ ko tudde bu ngeen ko gungee da nga ko gis te mosumaa gis damit sëñ Cheikh Moussa wax ma ko ñu taal def suñ cortège dugg cees fekk sa waay moom lim yor ci mbooloo yëngu bi ni mu bëree bi ma tàmbalee waxtaan sëñ Cheikh présenté ko nag kii doomi sëñ Modou sëñ Mbacke Saloum la moom moo raam ba ci ñëw na ma sama baay sa baay la ma tudde te mosuma laa gis ne ma dafa am lu ma doon topp sa baay ba mu génn àdduna ma ne ko lan la mu ne ma secret asraxa nuurul la sa baay joxuma koon ma ne ko ah loolu rek nga bëgg mun waaw ma ne ko da nga koy am fii ma toog ci baas bi sëñ Seex a ngi toog maa ngi toog ma ne ko loo ci doon wut mu ne ma secret bi dama ko wër ba sonn te sa baay joxuma ko ma ne ko te génn àdduna ma ne ko ah ma ne ko fii laa la koy joxe mu indi biig ak këyit secret bi Seexul Xadim mi ngi ko binde Murtani ashraqa nurullahi wa shahra kalamullahi wa shabata amrullahi wa nafsu hukmullahi istaanatu billahi wa tawakkaltu ala allah bi mu ndekkee ak big fi ma toog laa ko bindal ci tànt bi keroog dafa jooy ci tànk Serigne Cheikh na ko topp naa ko ci waajuram ba mu génn àdduna pour wax la nekk kilifa li yitte yi ak li sëñ Bass doon wax boo toppee kilifa foo jëm moo koy leeral moom jébul na ci sëñ Moustapha di tër biyu sama baay lañ tudd mus ñoo xam ne te lam doon topp sama baay dem na génn àdduna ndekete bu ñu sëñ Moustapha bal maak Cheikh ñu dem Thiès ci la mbir mi leer mooy borom poroxaan Serigne Moustapha kan mooy imam mooy ki nga xam ne bi Serigne Moustapha Bassirou dund ak mag ñi mooy ki ñu tànnoon muy jiite ngir sell kooku mooy Cheikh Moustapha bëru lu loolu jóg leen taxaw ñu sargal imam borom cant gi Serigne Moustapha Mbacke jërëjëfe Serigne Touba Cheikh jóg leen taxaw sëñ Bass jóg leen taxaw tey sëñ Moustapha la ñuy sargal soxna yi jóg leen nañ ñëpp jóg borom saam lañ wax Serigne Moustapha Mbacke borom saam Serigne Moustapha Mbacke imam lii mooy cant gi imam merci beaucoup tout mu mel ni dama bëgg ñu yënguwaat ndax tëdd ci lal yi di nelaw doyul sëriñ Moustapha bu nuyu woon fii bu ñu fayoon làmp yi sax ñu gis leer ga kooku mooy Jalal ak Jamal borom sàmm ma bëgg nag bégal leen Modou Fall bee ñëwal loolu la neex dafal yow jëwriñ nga jàllal jàllal sëñ Bas Baye Fall yeeg lii ñëw lépp ci ginnaaw mën nañu egg exil nga bëgg bismillah xaali ah bismillah lii de moom li tax nga def ko yaa ko xamal sa bopp duñ ko wax kenn muy sama kaala gi nga xam ne moom la àdduna bi yépp di xaar kaala gi nga xam ne ci sëñ bi la jógee muy faj aajoy jaam yi fu waay ne la nga làmb te imaam moom ko ñëwal def ko ci kaala gi ñu jox ko sëñ seex su ko imaam moomul nag bul ñëw téyel ngir dimbali ma jeex na asaab yi daw si leen ñëw yéen bu leen kenn jëkk ci kaala gi waaye kaala gi daa am lu ci ne du sama kaala kaala sëriñ sëriñ mu mudum safaa Mbàkke imaama li tax mu mu ne ma kaay daa bëgg dimbali jaam ñi ndax ñemewuma koy génne fu sëñ bi nekkul ndax lii sax caméra yi buñ ko jëlee sëñ bi dina na ana li nga laajoon ci kaala gi waaye boobaa ma ne ko nag sëñ Cheikh de moo fa nekkoon rek ma sëñ waaw kay jeex na am naa ñu ma kii sax ma ne leen kaala gi kat ma ne ko sëñ bi xam naa téléphone yi dana bari tey ci guddi gi waaye dinaa ko ne sëñ bi kaala gi sëñ Cheikh a fa nekkoon rek kal ko fa da ngay damay roof sëñ Cheikh rek kaala gi daa am lu ci ne ci la aajo yiy fajoo ngërëm li fukki fan ak ñaar ci weeru koor fu ne la waaye di jóge di ñëw di si kaala gi kaala gi du ay caaxaan ni may wax ci jamono bii lu nga xam ne xaw ma ko kaala gaa ngi nii nag lu waay di lijjanti mu te ñëwal ci kaala ak imaam gi boo gëmee imaam ñëw na soxna maram sëñ Muntaxa day ñëw ci kaala gis nga kaala gi da dul caaxaan ñemewu ma ko woon génne de xanaa gaa yee may lijjanti rek ma ndax kenn ku ne gis na na man bu ma ñëwee damay moxu rek dugg rekk moo ma ñor man man moom man looloo ma ñor waaye gaa yi nag dañoo xam kaala gaa ngi nii nag ci kanamu sëñ seexit waaye nag kanamu sëñ dos jàng kaala gaa ngi sëñ Mbàkke teen koo lem damaa gis ay dix mille kii doy na nag sëñ dos sa déggal kii sëñ Mbàkke murit baax na may wax ni kan mooy imam li tax yëpp am ku ne am na sang waaye sang bu doon sëriñ ak wàlliwu dañ koy moytu Seydina Ali nabi talib bi ko arab yi laajee loo gën a bëgg dafa wax koor ci jamonoy tàngaay cawante jaas ci lislaam la ay gan kooku mooy sëriñ Moustapha Mbacké imam ma bëggoon ndegam lépp rafet na xam ngeen ne mosu leen gis xalif général de murit bu toog yoonu murit toog moom ko di sëñ Muntaxa ne day njukkal Cheikh Ibra lu tax loolu am secret yooyu ngeen di xool tey soxla Mariam mu toog nii am na lu tax sëñ Muntaxa moom mooy sëñ Touba nekk sëtub sëñ Touba. doon xalif général des mourides ne 48 laa ilaha illallah kaddu gi jóg mu njukkal Cheikh Ibra Fall kon am na ay secret jógal taxaw lii nag moom buñ tuddee Cheikh Ibra ñu ne addee Cheikh Ibra may naa ko Cheikh Matar si la Cheikhul kii bu sëriñ Cheikh Mbacke amee Cheikh moom la ci nuroo ci xaritoo ci yu bari ër bii démb li mu def wakaam ak agam sa yaram day daw muy nit koo xam ne nii kurus gi ku fexe ba mu dogg ca benn xaatim da xam nag laal nga nag mbaakol kër sëñ ma ñaaw sil ñii ay doomu daara lañ sëñ Bas kii nga gis muy sëñ Maxtaar mii sunu xarit la ñun di xaritu Cheikh démb maa ko doon defal conférence am ci wakaam ci kaala gi sëñ Cheikh nee na ci kaala gi lay yow moo xaritam sëñ Maxtaar nee na ci kaala gi sëñ Modou Fall Bey ah l'argent calait toutes les sëñ tuubaa dafa neex Moussa ko def na ngal doore Bamba du morom kàccoor gaaxi tukkal kenn du ko perngal mboccoor ñun Ahmadu lañ gëm xaddimul Moustapha xat faka kab la xat ba sa fard la fa duru wala wa naf u jaay kii muy tàntal tey soxna su tedd soxna Mariama Jaareetu Laay Busu bi metti fii ci Ndakaaru moo fekk Serigne Touba ci néeg bi Moussa fii nag fii lëletil jumhati lañ ko tabbal ci néeg bu lëndam noonu yéen naa ko lambal mu lamb daj ay gobar ak i ràbb ñu tëj ko fa des mu dem mu des fa ak mu jublu xibla daal di kabar nee na keroog mënut a sujjoon ngir tar-tar mu jàng fa baqalek xaali imran jibrilu tijji néeg bi la quraan am na fa yaari guddi lekkul naan lu dul te leeri yàlla kooka neenu ne keroog gis na fa sunu maam soxna jaara mu di ko ñaax te di ko ñaan mu dolli daara ku wet gi laajal sëriñ Mor Penda moo fekk jotaay bi keroog moog Bamba kon soxna jaara sëñ Abdul Ahad ibnu Seexil Xadim ne keroog bu ñu ko dugalee ci yeer ma mar li gars yi Ibrahima amul lul génn jigéen sëq ci waggam ne ko doxal sab liggéey ba mu gestoo muy bu sa ndayam kuy soxna jaara sëriñ jàmbaar nga lool Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni nag fii dafay am lu bëri généralu Bamba su ma koy tudd lu tax ma koy tudd mooy sëñ Modou day xaritu sëñ Cheikh waaye nag fu ngeen mës a gis sëñ Modou Karam tudd day xam maay xajub sëñ Tuubaa maay ab généralam nu ni tudd nag ku ñëw fii kan la kii ci mag ñi lay waaj a bokk xaw ma kan la waaye du gone ah mam Mariam sëñ Muntaxa ah waaw Mariam moom alfayni ndax bu njëkkoon taar ba ci sañ Basiiru moo tax junni sëñ Basiiru lañ ko njëkk tudde ci yoonu murid junni da nga daan dégg mag ñi xamoon yoonu war dañ naan bu ma amee basiru mën a màggali alfun moo doon sëñ basiru mariama di doomam indi ñaari junni kon kon sëñ Muntaxa ñëwaat na léegi li tax man ne li may leeral foofu damaa tudd Cheikh du Kara Noreyni ak bëggam sëñ tubaa sëñ Touba am nag ak bëggam moom da koo nattoon ci Moustapha Moustapha moomee nag ab sëtam daa nekk ci jataay bi muy soxna Khady Aïdara madame Mbacke à vie kon RTS nekk ci ginnaaw Serigne Cheikh Mbacke imam di xadi suñu waaya ndax bu ñu demee maris yam doon def ci xeetu bernde man yaakaar naa ni yooyu àjjana rek la am te wax dëgg yàlla dafa mën a joxe addiye sëñ Cheikh moo ne ma sëñ Mbàkke soxna si bi ma ko takkee léegi li ma jox ci addiye ma jox ko sëñ Moussa Imaam bañ noppee poroxaan ci kër ga soxna xadi ay dara mi moo moobul moo ko jënd jox ko imaam sëriñ Cheikh mu jox ko juróom kon soxna lii lañ koy doyee jàppale sa borom kër ñu ngi lay sant di la saluer ak sa délégation ak ñi nga àndal ñëpp man damaa bokk ci sa njaboot sa xarit ndax buñ ay dara rek sama xel lay dem ci Moustapha suñ tubaa suñu sëriñ moo ne Moustapha antal karimu ana xadimu dërën uddi mu fekk sa naa yaa aji tedd ji may ki lay liggéeyal diirub jamono yow nga bokk ci yonent bi ne da ngay liggéeyal sëriñ Cheikh Mbacke imam kon borom saam nga dugg kër Mame Mor Diarra minute moo desoon kon ci jataay bi golo bañ na ko dangaa ñaaw dafa poñu baay ba ne ko sa parce que yaa ma jur kon golo moom ñaawul baay ba la nuru waaye sëñ Cheikh bu xawee am taar sëñ Bas ñëw indi taar Moustapha Bousso indi moo xam na kon waa waa kër sëñ Baara ñëw yéen ay seeti sëriñ Tuubaa ngeen man li ma am ci yoon wi dafa neex boo ne sëñ Mbàkke ñu ne murit te kër sëñ Saali lañ ma ko tuddee sama maam di Ahmadou Fari Mate taaw Mati Mbàkke mu jur Seydina Ousmane jur Alaaji Malick Ahmadou mu jur sama baay maam Balaye Seydi Thiar mu jur sëñ Mor Anta Sall mu jur sëñ Touba man dama am Touba am Tiwaawan sama maam may taaw maam Maram Mbàkke duma doomi gone mukk ci àdduna sama maam tuddiwaat ma sëñ Mbàkke Saloum jox ma sëñ Saliou 97 bi ma ca noppee lañ ma tuddi sëñ Mbàkke Murid kii rek moom ma tàntal sama buntu ko rey nagam dafi gàttam ne ma lay teral ci baat boobu sëñ Cheikh Imam kii sama xarit la dama ko bëgg ci civilisé am bëgg ko ci personnalité bëgg ko ci takk laxasaayam topp imam lii moo tax sëñ Cheikh intéressé ma gaynde yeeg bàyyi faal yeeg bukki faaliwu leen moom ki koy fàdd mooy imam mooy rabu ndëppam sëñ Bas sa bis a ngi nii nga bokk ci parrain yi ñun bañ gëj a gisanteeg léegi ëpp na quinze ans ci liñ la mos a xam mooy civilisé jaamu yàlla dal walil xaq wala kaana muran kurus gi bënn na waaye gise bi bëriwut waaye compal ñu ñu sangu comme ñun dañoo ne ci yëf yi coow li bëri gars yi bëgg di xëppoo sëñ Cheikh Tidiane bu sëñ Babacar si nee na séeréer yi dañoo bari pexe ba yàlla wutal nañ ko tur ak sant boo waxee bañ na barke roog xamal na yàlla la ñuy wax nee na boo ñu seen ñu ne noonu lañ ko sant la Cheikh Tidiane nee na séeréer si roog seen lañ tuddee yàlla sëriñ Cheikh moom góor yàlla loolu moo tax ma doon sëñ bi nag li nga bëggoon defe naa ne sa xol sedd na sànq ba léegi ku nekk ñëw ne sëñ murit sëñ murit mën na ma yow daal bala ngaa wax xaaral ba Tamsir soxna ñëw wala délégation bi mën na ko ah waa sëñ bi fonk nga leen di kon soxna sagar sëñ bi wax na ma ci kàddoom ne waxtu wi daaw bokkoon ko ci ñi tuddee guddi gi ren nga ànd ak Tamsir bokk ci listam ngeen nekk fii di wut kon nag wut gépp tey li muy jafe-jafe sëñ Bass yow lañ koy dagaan ñii ak pal lañ bëgg fii ay mbokk taalibe wut nag moom boo ko duggee ci kër sëñ Touba yaakaar naa ne ñàkk warutut am yàlla miy joxe yàlla na leen jox sëñ Cheikh wax na mën a Tamsir xaritam la wax na mën a karawaan la nekk mi ngi ñëw sànq ba léegi moo waral ñu guddee jël thème bi sax ñun développé li ñu war a wax ngir ne yéen la bëggoon ma defanteeg yéen ngir ngeen bëgg par waa Sicap yàlla ngeen mucc sëñ Basiru ñu gërëmaat sëñ Modou Fall Bey man day sama xarit. sama kàddu duma ko daaneel mukk te waxuma ko jërëjëf ci ñaari fànn ci ni ma gis mu toppee imaam ni ma gisee muy sellal damay gis ne bisam bi su ñëwee fii ay fas sax dañ koy war lu nekk day am bu sëñ Moussa dugg see séedoo dañ xam ne kii sëtu borom sàmm la ngërëm li ngërëm li ndax bis boobu dafa doy waar di dund sa sëriñ dund mu ne la gërëm naa la seexal la bay ñëw àdduna bépp daje yow li nga nekk dafa leer lumière buñ koy soxla pour lëndëm la mais nag ñoom yaral xafaay bi ay nil xal bi shaairatan kamal isa iduma tëtal akinati sëriñ bu mat sëriñ bu jàkkaar yu dem li ci xol bi xol bi sëñ Moussa maam xam ne yaa ngi ci merci beaucoup Modou Fall bi